asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy bàyyi xel te di ñëw seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen nuyoo fii ci kanamu sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla mi nga xam ne moo yore kàddu njabootuk sëriñ Mouhamadou Awa Balla gépp yore kàddu Cheikh Mouhamadoul Moustapha dox di gëm ak njaboot gi di ko saytul di ko toppatoo itam lépp loo xam ni sëriñ bi ci jëmmam moo ko waroon a taxawee ci biir njaboot gi ñu ñëw fi tey nag ci déggalu Cheikh Mouhamadoul Bassir mi nga xam ni mooy xalifa borom Darou Moxti waaye ci taxawaayu cellule de communication bi nga xam ni ñooy saytu lépp lu jëm ci màggaluk Darou Moxti ak lépp loo xam ni jëm na ci liggéey bi nga xam ni moom la sëriñ Bassirou di lëggéeyal ak Cheikh Ibra Faty muy jumaay Darul Moxti di liggéey boo xam ne sëriñ bi tàmbali na ko di ci woo jullit yëpp ak taalibe yi rawatina njabootu borom Darul Moxti gépp kon ñi ngi taw ci wetu sëriñ Xaadim Mbàkke docteur mu feggoog sëriñ Abo mi nga xam ni moo yore lépp lu jëm ci wàllu cellule communication màggal Darul Moxti ak lépp lu jëm ci yëg-lépp jumaay Darul Moxti kon ñu dekk sëriñ bi micro bi taataan ci moom ay kàddu yoo xam ni dana jëm ci kan mooy borom Darul Moxti ak bis bi ñu fàttaliku muy fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan waaye liggéey bi nga xam ne sëriñ Basiru woote na ko teg xeer wi def lancement des travaux yi di ci xaar taalibe yëpp kon ñu dékki micro bi sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom sëriñ Mouhamadou Awa Balla auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi salaatan wa salaaman wa barakatan tahabalana biha saadatan la shaqawata badaha wa akbaru dan minka la shaqawata badahu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli barke cheikhul xadim mbokk jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd bu bàyyi ko Cheikh Moustapha al Karim xalifatu Sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke di ko ñaanal suñu borom yàggal ko ci suñu kanam te may ko wér euh, te may nu ngërëmum yàgg ci ginnaaw <coughs> waaw kon xam naa ñu tàmbalee ci ci màggal gi waa màggal gi xam nga moom bi biñ ko njëkkee di def ci bis bi borom daaru wàcce liggéey lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko doon def mhm. waaw euh, sëñ Fallou mm, radiallahu anhu moom seexul Khadim mhm. moo wax ne bisu naqar du bisu mbégte mhm. daal di wax ne fukk fan ak juróom ci baraxlu ci la borom daaru njëkk a gisee ak euh, Serigne Touba <coughs> xam nga histoire chronologie bi boo ko respecté wut da jaawale da ngay da ngay jaxase ndax fi doolu Euh, màggaluk daaru moo jiitu màggaluk daaru salaam moo jiitu màggalu daaru salaam te màggalu daaru salaam te te te daaru salaam la sëñ Touba jóge ñëw daarul mën naan gi ci Touba waaye fekk ne bi mu ñëwee Ndar ci la woolu borom daaru sëñ Issa Diène radiyallahu moo ko moo ko wooyi nee nañu moom bi bi bi bi ñu woon ah, comme yëf yi dafa kii ñu ñu talxiis ko rek bi mu agsee bi ñu agsee ndar si saxaar gi moom nañu booba da am saxaar bu nga xam ne ñaari saxaar bii day jógee ndar jëm Dakar bii jógee Dakar jëm ndar ñu ngi daje kel 11h ci suba saxaar boobu lañ dàkk dugg ci fekk war dañoo war a fas baag si foofu <coughs> euh, moom bi ñu agsee ndar nee nañ Cheikh Issa moom dafa dafa leen a bàyyi du ñu jël ay wétir saret dem. moom mu dox waaw moo leen fa jiitu daal moo leen jiitu ci sëriñ bi waaw bi bi mu agsee sëriñ bi ne ko ana Thierno mu ne ko ñëw na sëriñ bi ne ko sëggal yow bi borom daaru ñëwee bi mu nuyoog sëriñ bi nee nañ daal daal di tuur rongoon waaw nañ sëriñ bi daal di tari alxuraan ba ñu giif mu daal ne ko ah bi ne borom daal ah ana foo foo nekk foo dëkk. koo dëkk léegi foo nekk mu ne ko am na àll bu nekk diggante euh, Mbàkke Bawol ak Touba sanc naa sanc naa foofu dëkk tudde ko daaru Minam sëñ bi ne ko waaye ginnaaw damaa amuk daaru Minam tuuba day jege soppi ko tudde ko daaru Marnaan daaru Mannaan mm-hmm. loolu moo andi tur bi mm-hmm. waaw waaw daal di ne ko euh, bu ngeen demee kër ga nañ ko def ko nañ ko defaraat def ko ñe ñeenti téeméeri xasab ñeenti téeméeri xasab daa xam ne après mooy deux cent mètres hmm. daal di génne ñaari bu ne ko fa ma ne woon suñu borom dafa maa xamal ne jéggal na ma jéggal na barab ba te mënu ma koo andi daal ne ko buum yi na néegi yi toll noonu benn buum bi ci benn ligne la bu nga xam ne dafa gudd nii mu ne ko na néeg soree nii mu doon moom daal ne ko it koor gi dama fee njëkk moo tax du mu mën a te koor gi jàll waaw moom daal xam naa daal tàggoo ñibbisi waaw ci la sëñ bi nag jógee ndar nag ginnaaw boobu daal di dem ay sànnoo seeg topp ci àll topp noonu ci biir réew mi di dox ba agsi daaru loolu moo tax màggal daaru mooti moo njëkk moo jiitu màggaluk daaru salaam ndax sëñ bi moom gis gisante nañ ñoom ñaar avant sëñ bi di génn ndar bi jëm si ci biir mm. te it wax na ko ne koor gi damaa njëtt kon moom moo ko jiitu mm. boo xam ne da ngay defee ne euh, muy bis bu bi sëñ bii dem bàyyee ko lépp bàyyee ko ñiy tërbiyew bàyyee ko ñiy jàng alxuraan bàyyee ko njabootu boppam mm. nga xam ne booba am na ñoo wax ne yaasin xuraan xakim sëñ sëñ sëñ fàllu ak sëñ war Mustafa radiyallahu anhuma foofu lañ toll waaw ay entre ak juróom ak juróom-ñeenti at kaamilu Cheikh Moustapha fekk na sëriñ bi ci géej gi. Hmm. borom daal yónnee na ko foofu sëñ mu seexal fi juróom-ñett fukki seex ginnaawam dara yàquwu fi bis boobu ñu gisee hmm, bis bu rëy la bis bu mbégte la bisu ndam la itam ndax ci sëriñ bi ci jëmboom won na boroom daal ne ko dem naa jaamaarloog samay eh, noon eh, ba gañe leen am ngërëmul sunu borom indaale ab sërica maa ngi nii xam kon moom bi ndam la ci moom borom daal itam won kone ko li nga fi bàyyi woon daa yokk waaye dara yàquwu ci waaye lépp yokk hmm. ñu war a jàng alxuraan koy jàng ñu war a jàng xam-xam maa ngi leen koy jàngal ñi war a cheikh maa ngi leen di cheikhal xam nga juróom-ñetti fukki cheikh ci ci ci juróom-ñetti at fukki cheikh la par at fukki cheikh par at mooy benn cheikh par weer hmm. nga xam ne kon bi fi sëñ bi jógee ba ni muy ñibbisi mën nga ne at mën nga ne weer wu ne borom daal seexal na kenn hmm. waaw à peu près ci mathématique hmm. waaw <coughs> kon loolu mooy magal gi leneen la ca toppitam mooy euh, nu ngoo tënku ci ndigal ndax bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Fadil euh, ba ñoom bi ñu koy tàmbali dañu la ndigal sëñ Modou Moustapha waaw mu joxe mu mu ànd ca bi sëñ Fallou ñëwee te nee nañ ko soppi dañ ko daal di soppi mm-hmm. waaw moo tax euh, ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo fu ñoo wutu woon ñoo ñoo wutu woon sëñ Modou Awa Balla itam ba ci sëñ Modou Awa Balla sax dañ daan waxal ku fi nekkal sëñ Touba rek boo ne woon ñu soppi ko it ñu soppi ko waaw mm-hmm. waaw am naa kon loolu moom moo ëpp solo ci màggal gi euh, ñu di ko def boobu ba léegi ba mu agsi ci loxol suñu xalifa bu baax bu tedd bi waaw ñu euh, euh, ñaan ko ñaan bu baax suñu borom yàggal ko may ko wér waaw nga xam ne moom bokk na ci ñi nga xam ne dañu liggéey dañu dañu doon liggéey waaw dañu doon liggéey Euh, benn waaye dañ ko ne diw diw diw ak diw man ku ci gën mu ne ko waaw bët bu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nopp bu dégg liggéey eh, ndigalul yonent bi sallallahu alayhi loxo bu def ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka mu yem ak ko waaye sëñ sëñ Bass dafa liggéey sëñ Bass jiite na jumaa ji fukki at waaw sëñ Bass sëñ Bass taalif na téere ci borom Daaru Muxti sëñ bas ñi ko yàlla jox ci njaboot yar na leen jàngal na leen mm-hmm. waaw tabax na fii beneen jumaa fii beneen jàkk ba nga xam ne bu leen neexoon def ko jumaa nga xam naa ne bu dem ba dëkk bi rëy ba rëy rëy faaw yi ñuy def jumaa lay bokk. Mm-hmm. waaw kon eh, dafa liggéey liggéey boole ko ak sëñ mu daw balla ñu yàgg sëñ mu balla bëggoon ko taxawu ko waaw ñëpp la war sëñ mu daw balla taxawoon waaye moom moo moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci rawoon mm-hmm. Mm-hmm. <coughs> muy boroomu cër